maa ngi tudd Cheikh Mar euh, président de l' association des médiateurs diplômés du Sénégal euh, aussi membre aussi de du COPIL c'est-à-dire euh, le rassemblement donc des travailleurs sociaux en tout cas des associations travailleurs sociales qui œuvrent pour la journée internationale du travail social qui devait être célébrée demain. voilà ñu organiser COPIL bi pour daf benn manifestation suba normalement la waroon doon. pour célébrer journée internationale du travail social donc euh, euh, par rapport nag ak contexte bi nga xam ne moo xew euh, ak jàngoro yi nekk ci biir dëkk bi léegi ñu daf ay réorientation par rapport ak li ñu waroon organiser démb muy journée bi daf benn activité citoyenne boo xamante su forme de volontaria ànd ñun ñëpp travail social toute association confondue ñëw au ministère proposer leen suñu bopp en tant que ressource humaine yoo xamante ni et citoyen yoo xamante ni dañu ñëw pour jàppale le ministère euh, pour contre euh, pour euh, riposte bi nga xamante ni war nañ ko jëmmal ci problème coronavirus